àndat ak yéen ba tey dugg ci hôpitaux yi dugg ci dispensaires yi dugg ci case de santé poste de santé yi doxantu ci néegu lënd mi ndax ñàkk axankay am na ba ci mbedd mi di nemmeeku malaati waaye dellu rek di ñaan buur bi nga xam ne moom rekk rek rek mooy docteur bu mag bi moom yaa rab bi yàlla nañu saafaraal waaye tamit saafaraal leen bépp xeetu jàngoro bu nëbbu ak bu feeñ ci barke la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam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 fa la macha allah xam ngeen ni nag seen émission bi di waree wareef ay thème la altine ba léegi ñu yëkkati thème boo xam ne ak dégloo la laaj fa la macha allah allah ji dañu ne àq jur ci doom àq jur ci doom naam sax waxtaan nañu ba tàyyi ci àqu doom ci jur ndax nee naa leen jur ñëpp xam nañ ne fa la macha allah doj la fa tabaarakàlla macha allah doom nen la wax nañu ko waxati ko waaye nag defaraat toogaay yi war na ci kaw am na yenn wuy jur yi nañ ñu dégloo xel bu baax a baax am na ñenn wuy jur yoo xamante ne amal nañu lool lool lool ak seen njaboot ci lan ci ñàkk leen yor-yor bu baax ci lan ci ñàkk leen dundal ci lan ci ñàkk leen warmaal ci lan ci seen ñàkk woddu ñoom ñooñu wuy jur yi ci lan ci seeni jikko yoo xamante ne tax na xale yi xeeb leen ci lan ci ci ci xotti war ma ak xottante war ma gi ñuy war xottante war ma ñoom ñaar ñaari way dencante yi xale yi gimmi ci di ko rus nekk complex am na ay xale yoo xamante ne complexe la ñu sax ñuy ñu seq seen ñaari ju ndax dëkk ci xottante war ma di dëkk ci déggant ay safaan lii la nga toog baay boo xam ne dafay xool doomam ba tay ne ko eh mu ñëw mu ne ko sa yaay ju bon ji dégg nga lii eh mu ne ko la amoo lay wax sa yaay nangam la ay xotti war ma xale bi xale bi moom warul nekk warul warul nekk arbitre boo xamante ne rek lu ñu yëkkatee dóor ko ko ndax tamit dëgg-dëgg ba ngeen di daje ba di sëy ba doom juddu ci ba doom sosu ci moom moom moom tànnul ay waajuram kon war ngeen di dëxëñ waaye léeg-léeg nga gis ci ndey joo xam ne xale bi day rom cam sa baay bi maa ko sib sa baay bu bon bi yaa fi gën a bon baay ani loolu ani lu tax xale bi di màgg ak gàkk-gàkk am na ci ay xale yoo xam ne ñu ngi taxawaalu ci mbedd mi seen ndeya am na ci ay xale yoo xam ne ñu ngi taxawaalu ci mbedd mi seen baaya am na fi ay xale yoo xamante ne ñu ngiy dugg ca naka su lu noonu seen waajur lu tax loolu ñu ànd waxtaan defaru weesul taxawaat sàmmaat xale yi xam ne waajur wu nekk sàmm nga te yow mal xiyaam ku ci ne dina la laaj naka nga sàmmee woon kon lii moo waral waxtaan wi ànd ceeg yéen ci numéro yi ngeen xam ne miin ngeen ko vingt 88 628 22 22 88 628 22 22 sooy wootee bitim réew nga def 00 221 33 841 22 99 00 241 euh, 00 euh, 3 221 33 841 22 99 Alaaji daal nee naa la thème bi daal ñu ngi xaarandi Abdou Aziz Alaaji Abdou Aziz am gàllankoor gu ndaw rek mu ngi ci yoon bi yàkkamti dañ ko lool waaye Alaaji defe naa ne. ku wax lépp nekk waxkat démb dafa am xale bu jigéen bu ma woo nee ma son dégg ma ne ko naan mu ne ma sama yaay de ñaar lay def mu ne ma wéet naa jooy naa lu nekk def naa ko fu mu nekk nii dama doon xalaat sa xaru dama koo bàyyi ndax ñaar am mu ne ma sëyul sëyluwul mu ne ma ginnaaw man na mën jug naa ci toll ci sëy ci war a sëy mu ne ma su amee ku may labat si ñaar la mën a def benn bi dina la ne bu ko takk jigéenu mbedd la mu ne ma xam nga sa yaay mu am góor gu lay seet si di wax takk sa yaay ci jëm boppam ne la bu ko takk su ma doon yow de doo ko takk ndax jigéenu mbedd na mu ne ma wala boog su fekkente ne deful loolu bi gën a sedd mooy day ngoro ak ka may si jéem a takk ngoro ak may wut si mu nekk ay mbir yoo xam ne allah ji yéeme na yéeme ne yéeme ne ba ci kanamu yàlla xam nga ni genre yaay bu mel noonu da ne woon du ñu ay parents sax ay parents lañu waaye yaay bu mel noonu boo xamante ne ku taxaw di wut si sa doom nga ko eh dangaa kii bu ko takk nangam la xam nga baat ba may bañ a waxee jigéenu mbedd la ci sa doom kuy ñëw taxaw di wax ak yow wala boog su fekkente ne kooku am na chance loolu mu takk la nga ne loo koy seetee xanaa mënoo ñëw ci man ani lan nga ci wax alaaji balaa ñuy nuyu Abdou Aziz xam nga soxna Degene jigéenu mbedd néegum ni ni euh, néegum sëyee hmm. xasul xale bi jigéenu mbedd néegub sëyee koy jur ci sëyin wa xësul xale bi. sa doom sam xel ne ci moom. Mm. te ki dul tànn. Mm. te judduwul. Mm. ki tànn. te jur ko. lu xew mooma du xaste. baree la. ngi wax aw saan la widdal seen dënn. mu ab safaan. sama doom ji bu ko takk ndax day doomi mbedd. nga jur ko. wax naa leen ne ngor ak àngal bala mm. ngaa mën a bàkku bay joxe ay bernde ndigal weesu Carrefour xasul xale bi jëmmam la xas. wala mu jéem nga ko jëmmam la xas rek dama toujours ne la ndey ak yaay daa bokkul. Mm. papa ak baay bokkul. boo gisee mag njëkk seen baat di barkeel. lañ daan nàmp di ko toqamte ko. Mm. muy jikko ci ñoom tamu way te bu ëllëgee dindi ko fa doo yomb. moo amatul na nga jure lañ lay jurele nañ la yare ngay am dëgg la na nga màgge mm. la sa doom di doxee dëgg la alaaji xasu ko dëgg la te yu ngi nii soxna nañ ko di moytu mm. baay bi labat te tànn mm. ndey ji teeyul ba dugg doom fekkiwul pigiri guñ ko ba muy rate dama guñ ordonnance rendiré guñ ko su doom juddoo baat bu ni cas jëm ca doom ja hmm. waajaat ko ndax sa bopp la jógee dëgg am na ñoo xam ne ñii hmm. la mag daan def tànn la ñuy def dëgg la ba pare nag dugg ci biir tànneef ka tànn teg ci dëgg la alaaji jigéen ñi tànnatuñu góor ñi tànnatuñu dëgg la alaaji dañ leen daan tànnal dëgg ku tànnal sa bopp nag dafa hmm. naa la ne ñett yi rek moo mën a nekk kiñ la takkal say famille di sa waajur mbokk lay doon ak deret sañoo koo bañ noonu mel boo amee kilifa téye ko dëgg ki nga tànnal sa bopp loo si gis na la doy. Mm. Mm. bul jàmbat. kenn ba ma xula jàmbat kenn ba ma xula ca. Mm. la tànn nag. te jekk. ko bàyyee xel. bis la waajal nga génn këram. jërëjëf. ah déggu li ma la waxee. <laughs> waaye dafa ñoo xam ne ñi même leen tànnoo nit. du neex a génne. dañuy xam àddina ba pare fereng laay ci jamono. saa bu ñu jëfee sa kër benn la ñuy sol. sànci ni Abdou Aziz def. bu ñu génnee benn la ñuy sol bu ëllëgee bu ñëwee benn la ñuy sol. te seen waxande du jeex. dëgg kooku ba max ko du yomb. dëgg la dañ lay bàyyi xel rootal la. ba ndaa bi du day mukk. dëgg la ndaanaan pire moo bëreetul. dëgg la moo tax accident di bari. macha allah macha allah tubarkalla macha allah. li tax max la loolu nag mooy lii rek la woon. Mm. ci démboon. Mm. dañoo Abdou Aziz Mbaye mm. ngay naam ñu demal dëkk sàngam. laa ci sa bàyyi diw mbaa sa njiyaay. Aziz ne ci yoon. am kilifa ami teggin te tànnul boppam. mu dem. mu ne boo demee nag nuyool waaye bul gaawtu. juróom benn day ñu la romb. kalkinal ku nekk sam xel ñëwal bul wax. yooyu amatul diggante dëgg dëgg la la laaj. te noo ngi def wax xam ne yi nañ ko di moytu. Mm. xaste. Mm. dañ ko war a gas ba mu xóot ñu suul. Mm. koo xas mën na laa xas. doom joo xas. bu la rusul. wóolu bi daal mën na laa xas yow. lool lool lool lool. da lay rus nag. Abdou Aziz Longoor yee woote. Mm. ndax ndaam ak njool dañoo dul bokk misir. jox ko mu nuyoo. ma ñëw rek <laughs> dañ dul bokk misir. dëgg la mu biyee su tante waaye kooku gisub góom. dëgg la gàkk gàkk. gisub góom rek. Mm. kon ñu ngi lay siyaare mbay. Mm. di la ñaanal te ñu déglu nu. xel bañ ñu dégloo xol. xasuñu kenn. waaye li wér te wér daal. ab saanu daal safaan. ab assis ab déem ëpp mm. lu mu la gën a jege doyul. dëgg la da lay blessé doo am ordonnance. cay waa El Hadj loo ndekkee tey. waa oh, côtelette. <laughs> Abdou Aziz. <laughs> Abdou sargal naa la. Adja Diguène maa ngi lay sargal nuyu naa allah li El Hadj waxee xam nga man ay ndaanaan damay seq. <laughs> Uh-huh. tey ban verre nga def pistache. waaw xam nga ci rose xaw ma ma génn ci rose man tamit. waaw Adja Diguène euh, man dama lay admirer. namm macha allah di nuyu ñëpp. ndeysaan di nuyu mbokk te di la ziar. di ziar El Hadj Ndiaye Lo di leen ziar ci ñaari taxawaay. bu njëkk bi mooy lii ñuy def. Mm. te ngeen sos ko. ñaareel bi mooy ni ngeen def ci màggalu Touba. ngeen contribuer ci lu jiitu màggal gi ngeen wax ci. ci biir màggal gi ngeen wax ci. kon gu màngal gi passé te mu mel nanu bëgg dañuy sant yàlla eh, sant sëñ Tuubaa bu baax eh, eh, yàlla nanu ko yàlla fayal amiin ndax dajaloo ci bis pour ku fa ñëw am barke nit yàlla moo ko man te bu ko defee ña fa dem ku ci nekk booy gépp la El Hadj loo waxoon ku ci ne na nga fexe ba boo fay génn xool sa bopp lu sikkoon ci yow nga wàññi ko ndax boroom bis ba fi nga génn nag ci waxtaan wi mm. ci diggante sëy la mm. ci diggante doom la ak ndey. ndeysaan àq waajur ci doom. ci doom. àq waajur ci kon bu nee àq waajur ci doom rek. Mm-hmm. dañuy indi relation. Mm-hmm. boo xam ni jigéen ak góor ñoo ko am ñoo ko seq ci ak ay doomam. Mm-hmm. mais lan moo waral relation boobu. yàllaa ko wax. ni sëy leen. ci anam yu sëy yu rafet yi. yokk seetu Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. ñu ni la wax la li boo bëggee am doom ju baax nan ngay wute jabar mm, tànneef nan ngay def nan ngay tànne mm. olof yi nii mm. nit daal bu bëggee am kër bu tudd kër fokk mu am jigéen joo xam ne day am jikko yenn jikko yi pour mu mën koo am moo tax ñu lay tànnal nga gis ni ñi fi jiitu tey kilifa diine wane nanu yoon ndax koo ci topp nu mu jëlee rek. Hmm. bu duggul kër buur. Hmm. dugg na kër borom xam-xam. Hmm. ndax jikko ndax jikko. day loo taabe ji jikko. bu rafet. mooy ngar goo xam danga nga cay fekk ñu nekk ci ceddo. waaye am valeur yoo xam lislaam nangu na ko. nga dugal fa sa kàddu. jikko jikko. wala nga gis néeg boo xam ni. don nañu xam-xam. nga jëli fa doom di rootaani bu ëllëgee ka nga fay jot am xam-xam. wala boog nga gis koo xam ni bu duggee ci néeg ba toog fa yàlla dina may néeg ba xéewal moom mu muñ muñ gu tax xéewal googa baawaan ci biir sëy bi kon nga xam ni kon nit rek mënul a jóg wutali boppam waaye nit mën nañ koo tànnal dafa am benn woykat bi ni yaay bu ma tànnal jabar mm. benn mag toog ca ca keppaaram di ko déglu mm. bàyyil ma tànn sam bu ne ko ah, bu ma la bàyyilee nga bu nu la bàyyilee nga tànnal sa bopp nga am coow. ndax mm. tribunal bu fi xale bi tànn léeg-léeg mooy mujj tribunal. Mm. moo sëy bu fi xale yi tànn mooy mujj tribunal. Mm. du yëpp nag. kon boo amee di wuti labat d'abord. ci jikko ji. da ngay seet koo xam ni ay wuy juram ay exemple lan fon doon parce que looloo critère bi naan sëyee. Njaay wax na ko léegi. dañ naan la daan wax dama takki sa doomu nàngam. xam nga doomu bàjjen. boo déggee ñu koy wax demal nga takki ko. day bokk